maa ngi leen di gërëm di leen sant di sant euh, professeur Guèye nga xam ne moom mooy chargé de communication réseau des universitaires Benno Bokk Yaakaar te mu organiser mbir yi maa ngi gërëm samay nattangoo yëpp ñi fi nekk ay professeur lañu ñu ñoo bokk kuréelu réseau des universitaires Benno Bokk Yaakaar ñu teewee ko ak mbooleem ki fi ñu fi teewee ñi nga xam ne ñi ay soppe lañ ñi ay étudiant lañu ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, ndaje bi li ko waral mooy xam nga ni temps yi coow lii dafa bari ci mbirum université tijji leen université def leen lii lu tax ngeen tëj lii politique la lii ak lay ñu ngi ciy wax lu bari am na ñuy wax li ñu xam am na ñoo wax dëgg yàlla gëm naa ni xam ñu trop li ñuy wax loolu moo tax jar na leeral euh, kon waxtaan bi ci ñaari paaj la paaj bu njëkk bi daal dañu waxoon ne il faut quand ko ñu wax liggéey boo xam ne bu ama ama solo bi nga xam ne président de la république def na ko ci enseignement supérieur bu Sénégal defal na ko enseignants yi defal ko étudiants yi defal ko parti yi defal ko ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci liggéey te Sénégal yëpp teg ci bët defal ko chaque Afrique loolu il faut que ñu waxtaanee ko tuuti bi président ñëwee moom déjà bi mu nekkee candidat bi bi ñu waxee ne bi ñu ñun ñoo ko ko wax sax ñu ne ko soo moytul université de Dakar ci benn ndaje ak biir dañ ko ne soo moytul université de Dakar moom ci année blanche lañ jëm université Sénégal yëpp day parce que boobu man maa ngi SAES ñu ngi grève di marche marche bi ba je me rappelle dernière marche bi sax kii euh, kii de Seydi Ababacar moo nekkoon je pense secrétaire général SAES man man man sax bokk naa ci eh, bu mu gisee loolu moom candidat la de bu ko neexoon mu noppi mbir yi jaxasoo gën a jaxasoo nguur gi gën a sonn xëy loolu moo koy dimbale non deful loolu dafay wax ci premier meeting am géejawaay mun nañ ko baar hein? mu ne mu ñaan SAES e ñu teg grève bi ci suuf ñu sauver année bi parce que année blanche moom dafay yaxal Sénégal ay atum yu bar at yu donc lancer message boobu bi mu demee deuxième tour ci diggante ñaari tour yi recevoir SAES e mu waxtaan ak xamal bu incha allah vraiment dina fexe ba sukkali université bu Sénégal loolu moo tax SAES temps euh, année boobu ñu teg grève bi ci suuf ñun ñëpp ñu dellu jàngale ci amphithéâtre ba moom mu falo ci ci ci mel ci lu mel noonu kon loolu dina ma jaaxal kooku nga am ne tey moom mooy président de la république nekkul candidat ñu ne mbirum politique moo tax muy tëj université loolu moom dina ma jaaxal trop trop trop te boo xoolee moom bi mu ñëwee dafa li mu li li mu wax loolu la jëpp parce que dafa ñëw matul at mu samp kuréel boo xam ne professeur Souleymane Bachir Diagne moo ko jiitu woon ñu tuddee ko concertation national si l'avenir de l'enseignement supérieur xam nga booy def concertation nationale pour ëllëg enseignement supérieur ça veut dire que vraiment peut-être présent bi maanaam li fa nekk heure boobu mais dara baaxu ci donc mu def loolu yàlla def nag ñu def ko defal ko recommandation yu bëri nous avons ci ay ndogal li ñu les onze décisions présidentielles pour l'enseignement supérieur 11 décisions yëpp avons naa ko fii ci français du ma ci ñëwaat mais bokkoon na mooy ñu mun a def euh, ñu mun a ba ku am bac Sénégal ñu mun laa orienté nga mun a jàng mu décision ne ku am bac Sénégal dañ lay orienté soit ci université publique wala ci université privée ñu créé campus sain. te ñu doxal ko mu dem ba jëmmi jamono problème am ci problème mu enseignement privé yi ñu gis école yu bëree bëri affaire bi daal xaw a tey xel bu joxaat instruction nee na comme que moom indi na léegi trois universités yu bees tak léegi nañu fee orienté bachelier Sénégal yëpp ci université publique yu Sénégal loolu moo tax depuis deux mille dix-neuf ku fi am bac dañ lay orienté te xam nga ne li mu bac bi dafa doublé maanaam fanweeru junni la nekkoon léegi passé na juróom benn fukki juróom-ñaari fukki junni wante ku fi am bac nag dañuy fexe ba orienté la ci université bu Sénégal bu public boo xam ne doo fay bu loolu weesoo li mu defee mooy comme li ma wax mooy yaatal carte universitaire bi mooy yokk limu université yi moom yokk na ci ñett te mu ngi mu ngi préparé pour tabax ñaari yeneen yi mu ci yokk nag mën nañ ci ràññee université numérique bu Cheikh Hamidou bi nga xam ne mooy ci li mu étudiant léegi moom mooy ñaareelu université bu Sénégal ñaareelu bu jiitoon Dakar université numérique mooy ëpp lu muy jël ci étudiant fii ci Sénégal te ñu naw ñu ko parce que dama ko fàtte wax ci français bi tey recteur université numérique mu ngi Chine yónni na ma message léegi nee na université numérique mom le kuréel bu UNESCO bi nek Chine mom la jox raya pour enseignement à distance donc suñu université bi man nga xam damay dajé ak samay homologue ñepp ñu ñooñu ñé université té loolu aussi bi mbass mi ñëwé dama fi né vision vraiment le président amoon parce que bu dul woon bu ñu xamuloon ñun amuñu woon expérience ci loolu bu mbass mi ñëwé dañuy dañuy tëj suñu université mais bi bas bi comme ñun am nañu expérience déjà jàngale ak distance loolu moo tax suñu université yëpp ñu basculer ci enseignement à distance ñu sauver année bi te li ngay li li li ñu gis temps yi nit ñoom ñu ne ma non jàng bi baaxul et cetera mais 2020 yow sauver nga année bi ci enseignement à distance mais 2023 lu tax doo ko mën a ci enseignement à distance parce que 2020 mbas mi attaqué wul université de monde bi yëpp la attaqué mais ren ni attaqué dañu attaqué université sénégalaise ñun la ñu attaqué université bi la ñu attaqué. damay dégg ay nit sax ñu ne waaye bi amee guerre bi Ukraine kenn tëjul no mais attends mais Ukraine xëy na seen étudiants yu bari ils sont au front di xeex te ñoom dañu leen attaqué beneen dëkk en ñoom loolu lañu wax ñu ne dañu xeex ak beneen dëkk ñun dafa am ay gars yu ñëw attaqué suñu université donc defe naa loolu bokkul te ñi ko attaqué dafa dafa dafa fekk ne d'ailleurs ñi fa doon jàng bokk nañ ci am nañu ci bokk mais loolu xaw ma nan lañ koy méngale donc président en tout cas ci yokum carte universitaire gis nañ ni bu ñu amee indépendance ba légui ñun dañu fekk fi université bu ñu amee indépendance moy université Dakar France moko momone moomoon mu jëbal ñu ko ci euh, indépendance en 1970 d'ailleurs joxuñu ko 1970 1970 bu loolu wesso bi fi Abdou Diouf ñewé nek na ñaari fukk at ci nguur bi ben université lañ tabax moy université Gaston Berger Ablaye Wade ubbi na université mais tabaxul université ci li ma xam ci li ma gis te maa yoon fii président Macky Sall tabax na ñetti université ubbil nañu classe préparatoire def na campus franco sénégalais te mu ngi waaj a maanaam tabax yeneen ñaari université loolu mooy dëgg bu loolu weesoo nag ñu waam ñu dem ci wàllu social comme ni ma la ni ma leen ko waxee 2012 lu tax SAES e année yi passé mu nekkoon syndicat boo xam ne mu ngi sur le front tout le temps parce que dafa amoon loo xam ne ñun ñëpp dañ ko doon nga ñëwaat ah. maanaam retraite professeur université yi dafa amoon benn loi boo xam ne ñun suñu cotisation dañ koy xaaj ñaari benn paj lañ ñuy jox beneen pàcc bi dañ koy maye en fait loolu la parce que dañ ko doon jox pour ñeneen ñu xeex ko xeex ko bu président Macky Sall ñëwee mais dafa régler problème bi delloowuñu pàcc boobu de dafa def ba suñu retraite bi macha allah. amul kenn ku mën a wax ne am na ko uppale professeur enseignement d'université retraite fii ci Sénégal wala même ci Afrique loolu aussi mooy dëgg ñu dem ba jamono ñëw bu mbas mi ñëwee ak leneen guerre Ukraine prix yokku fonctionnaire yi am yokkute ci seen payoor bu SAES e ñëwee ñu waxtaan demuñu grève de pour la première fois defuñu benn jour de grève président Macky Sall faj lépp jox leen en tout cas salaire yoo xam ne ñoom ñoo ko wax de mosuñu woon xalaat ne dinañu am yokkute bu mel ñu defal ko personnel administratif technique et de service donc ci walum social amul benn président bi nga xam ne jox na professeur universitaire, yi euh, fii ci Sénégal depuis l'indépendance loolu mun nañ ko wax aussi te kenn munu ko weddi parce que on a les chiffres ci walum étudiant président Macky Sall malgré que étudiants yi seen lim dafa doublé dafa doublé mais moom noonu la defee aussi mu doublé limu mu triplé sax li mu maanaam fi étudiants yi di tëdd mooy seen lal yi ci wàllum lekk moom li mu doon fay ticket dans les années quatre-vingt mu wàññi ba ñii léegi ñiy jàng li ñuy fay moo gën a néew li président Macky Sall doon fay ci restaurant pour jàng loolu Sénégal rek la am Sénégal rek la am étudiant nga jël cent franc nga añ nga jël cent franc nga dëkk loolu amul ci beneen dëkk loolu man mun naa ko wax te dama bugg a en ñu indil ma dëkk boo xam ne. mun nga jël 100 francs nga agn wala 100 francs nga nek lolou man gisuma ko fenn ci walum pay bourse manam payeur bourse mais année bi di jeex ni fay nañu 83 milliards de bourse ci suñu étudiant yi ma xamal len ne boo xoolee ci walu suñu région nga méngale ñu ak Côte d'Ivoire nga amné moñu upp doole moñu upp nit Côte d'Ivoire 30 milliards donc lañu fay ci étudiant boo xoolee si ci wàllu wàllu œuvre sociale ci li ma xam université bi gën a mag Côte d'Ivoire chaque jour bu ñuy def repas maanaam juróomi junni couvert la ñuy la ñuy la ñuy servir ku fi am baax nag koo amul bu amul nga dem ut feneen Sénégal coûte trente mille trente mille repas la ñuy servir repas bu nekk trente mille donc ci journée bi day dem ba cent mille repas coûte day dépenser chaque jour soixante quatre millions pour subventionner les mu 64 millions le Sénégal réclame. c'est ça la vérité en fait Sénégal réclame. la nga dem ci walum gestu Gestu nak, xëy na dañuy wax ni rek ñu ne woy woy mais gestu, mon bokk na ci lo xam ne président Macky Sall foofu la gën def sax ay djégo. parce que foofu mom désert la woon c'est-à-dire dara amuloon dara mais voilà, may dem rappelle dañ may rappeler que président de la république en plus xam nga tous ñun que dañu l'enseignement enseignement supérieur le ko bloqué moi. Nous ñi dañuy dem jàng jàng bu ah, diplôme licence master mais nous employé à part ñu dem formation rawatina sama mbokk fac lettres yi nga étudiants nous am nous vraiment. Nous xam lu ñu def ce qu'on appelle les instituts supérieurs d'enseignement professionnel mu ci le euh, sixième bi bi mu mois de janvier mais am nañu programme bu presque 90 milliards boo xam région bu Sénégal dañ ciy samp ISET tabax ko te 2024 dinañ ko nous a pare loolu muy permettre en tout cas ku métier par métier la ñuy jàngee te gis naa ay directeur de société ku mel ni Racine RTS ak ñeneen ñu ne ma vraiment ISEP yi e dañu leen arrangé parce que ñoom ñoo doon former seen technicien dañu lay recruter xamoo xamoo métier bi ñu lay tettee ndànk-ndànk ba nga mun ko léegi mun nañ dem ci benn ISEP jël fa benn gars yi le lendemain il est opération. c'est ça que le président a fait et ISEP yooyu man bokk naa ci ñi ko gën a kii parce que gëm naa ni c'est l'avenir de l'enseignement supérieur donc ci wàllum recherche président lan la def dafa jël maanaam quatre-vingt-quatre milliards jégleel ko jënd matériel li ñu tuddee euh, équipement des laboratoires de recherche et pédagogie maanaam ñuy def TP laboratoire mais loolu mosuñu ko am Sénégal c'est-à-dire ko ñun avant faculté yi ñoo doon góor góorlu di jënd ay ay matériel de di di wala ñu xool ay projet def ko ak beneen euh, bailleur ndànk-ndànk ñu am recherche moom kenn musu ko woon financer fii parce que ñun on avait hérité d'une université boo xam ne day former ay cadre du def recherche donc loolu président Macky Sall 84 milliards ci ci ci deux ci cinq dernières années yi la ci dugal pour loolu d'ailleurs matériel boobu moo ñu permettre bi ñu ubbee suñu classe préparatoire fii ci Thiès matériel bi dafa fekk mu ngi door a ñëw ñu yóbbu ko foofu ñi fay jàngal ay français lañ parce que dañ jël ñi nga xam ne dañ xarañ ci affaire classe préparatoire indi leen fii ko koo xam ne jàngal na 30 ans lycée Saint-Louis de Paris mu ngi fi Thiès professeur physique yi nee nañu matériel bi ñu gis Thiès fii moo gën a matériel bi ñu doon jàngale foofu ci France mu def mu passé loolu mu jëndal ñu supercalculateur huit milliards de francs CFA supercalculateur de boobu li muy def ci calcul ci waa ci Afrique à part Afrique du Sud le Maroc doo am machine bu ko gën a performant ak yeneen matériel bu fa nekk ci cité du savoir boo xam pour les physiciens et les biologistes L'olive qui ci recherche président moo ko def mu pare loolu nag mu ne Sénégal il faut que ñu dugg ci spatial parce que c'est l'avenir non seulement dafa créer l'agence sénégalaise d'études spatiales mais dafa dénkoon depuis 2019 ministère de l'enseignement supérieur benn projet bu ñu të tudd SENSAT gaynde yàlla dafa def ne dañu jël ay suñu étudiants ñu dem former leen ñoom ñoo manam tabax suñu premier nano satellite satellite Bobu, le 15 décembre damay dem France pour réceptionner ko bu ci yalla andé début 2024 dañ koy mettre en orbite manam li ma que le Sénégal va commencer son voyage spécial sous l'air Macky Sall te retombées yooyu nag retombées yooyu ci walum mbey ci walum changement climatique ci walum santé loolu vraiment day dugal Sénégal ci yenen gamme, manam C'est aussi important pour moi le fait que nous avons pétrole et gaz, le fait que nous avons yoyu. Donc lolu aussi président moko def. Mais yemul ci Sénégal, président de ne mom mam nga président de l'Union africaine, ñepp gis limu defal il y a 2 milliards tek ko ci ben compte mu ne kurel bi il y a denk manam euh seytu njang mi fi ci Afrique muy CAMES. Mu denk len ko mu ne chaque année da def concours pour joxe ay prix Euh, yu les meilleurs projets yi nga xam ne li ñuy def ay africains ñoo ko def te méngoo ak soxla Afrique maanaam soxla suñu développement euh, barke démb maanaam euh, semaine ay bés bi bi passé président remettre na prix yoo xam ne cent millions la woon ñu jox ko trois projets de prix nga xam ne ki ko jiitu sax ñi ko jiitu lépp ay Ivoiriens lañu mais nag wax nañ ci seen discours seen projet du Côte d'Ivoire rek moo ko moom projet bu nek y a cinq pays te trois projets yeb defe Sénégal mu donc lolu aussi président Macky Sall moko defal recherche non seulement pour le Sénégal mais pour l'Afrique donc vraiment euh, ci tënk en wolof lolu la ci bëggoon wax euh,